aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bokk jullit yi ñuy déglu ak di ñu seetaan ci seen télévision bii di 2 ñoo ngi leen di nuyu ci baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ñaan yàlla buur bi dara tëwul mu boole ñu defal jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nuyoo boobu ëmb yal na ko yàlla sotti ci àdduna bi yal na ko yàlla sotti ci réew mi waaye yàlla bu ci kenn pële barab bii ñu koy waxee yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko yàlla def di ñaan lépp loo xamante ni jaamu nañ ko yàlla na ko nangu ca na mu toll waaye bañ koo nangu ci ni ñu ko jaamoo ndax jaam bi ni mu toll rek noonu lay jaam mais yàlla moom na mu toll noonu lay fayee kon yàlla nañu yàlla nangul ca na mu tollu fayee ñu ca na mu toll waaye bañ ñoo nangul ci ni ñu jaamee jaamoo te bañ ñoo fayee ci ni ñu toll di ñaan sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla amul lu dul moom lépp loo xamante ni julli nañu ko ci moom ni ñu ko yàlla digee di ko defee noonu yàlla bu ñu rëcc waaye nuyu bu baax ziyaar bu baax këru diine yi nekk ci réew mi yëpp ñaan kenn fépp fu nekk ka nekk ca bopp ba bëgg-bëgg ma ki yéenee ma ki mébétam moo ko xam yàlla nag ko yàlla defal ñaanal bu baax sëriñ Babacar Sy Mansour xalifa bi yàlla na yàlla sàmm ko te aar ko wéral ko ba naal yi nga xam ne naal na ko ci ëttu baayam ak maamam yëpp yàlla may ko kàttan gu mu ko mottalee rawatina naal bu réy nga xam ne naal na ko ci ëttu maamam cheikhul xaaji malik radiallahu anhu muy jumaay yàlla ji ñuy ñaan yàlla mu yeggale koog jàmm ba jiite ci jaami yàlla yépp waaye ànd koog njabootu maam cheikhul xaaji malik radiallahu anhu gépp noonu itam la ñuy nuyoo bu baax ziyaar bu baax waa kër mam borom tuba xaadim rasul ñaanal sëriñ muntaqa bachiru mbake bëgg-bëggam ak yéene ma ki mébétam moo ko xam yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe jortam bi jaahi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bépp yéene boo xamante ni am na ko wala lépp loo xamante ni rek yéene na ko ci ëttu maamam yàlla na ko ci yàlla defal ndam mu ànd ci njabootu maam borom Tuubaa Xaadimu Rasuul gépp noonu itam lañuy ñuy bu baax ziyaar bu baax waa kër maam Abdallahi Niass ñaanal xalifa bi cheikh Mouhamadul Mahi moo xam ay bëgg-bëgg ma ki yéene ma ki mébétam yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe jortam noonu itam la ñuy ñaanalee bu baax ziyaar bu baax waa kër maam Amari Ndaak Seck ñaanal xalifa bi yal na yàlla dëgëral ko bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ban yéene bàyyeeg maam yi yàlla may ko kartan gum ko mottalee noonu itam la ñuy ñaanalee bu baax ziyaar bu baax a baax a baax waa kër mam bu kunta ñaanal xalifa bi yal na yàlla taxawu ko te dëgëral ko bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu itam la ñuy ñaanalee bu baax ziyaar bu baax képp koo xamante ni rek ahlu baytu rasul nga muy sëti sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi nekk ci biir réew mi ak biti réew ñuy ñaan yàlla buur bi dara tëwul lépp loo xamante ni rek dagaan nañ ko ñi ngi koy dagaan ci barke yonent bi na ñu yàlla ruse seen maam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di ci ziyaar bu baax a baax a baax Chérif Cheikh Tidiane Haydara di xalifa maam Yunus Haydara ñaanal ko moom it yal yàlla dëgëral ko yàlla yàlla sàmm ko yàlla yàlla taxawu ko noonu itam la ñuy ñaanalee bu baax ziar bu baax a baax a baax Chérif Ismaïl Haydara imam ratib ñaanal ko moom it lu mu jiite yàlla na ko yàlla nangu waaye ñaanal bu baax ziar bu baax a baax Chérif Moussa Haydara mi nga xamante ni mooy yor kaddu famille Chérif Yunus Haydara yëpp bëgg-bëgg ma ki yéenee mit yàlla ko yàlla defal lu kawe njortam bi jaahi sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko am na ko yàlla nañu ko bur bi yàlla defal ñaanal képp koo xamante ni rek yaa ngi ànd ak ñun ci waxtu yi ci seen bi di Al Ihsan di ñaan yàlla lépp loo xamante ni rek wa fàttali nañ ko ci suñu bopp mbaa ñu fàttalante ko jaami yàlla yi lu ci jub rek yàlla na ko yàlla sëmbarteel ci biir dënn jaami yàlla yi waaye lépp lu ci ñagas mbaamu mu dëng ci yàlla jéggal ñu ko suñu nameel ak suñu bëgg-bëgg du dara lu dul jubal ak rafetal waaye yàlla rek moom kartan yàlla na yàlla kartanal ñëpp bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam démb nag la ñu ñoo ngi yemoon ci li nga xamante ni Cheikh Abdourahman doon na ko jàngale te wax ni li nga xamante ni ab jullit bu nekk war na ci moom euh, li nga xam ni mooy premier act bi mu war a njëkk a posé keroog bi nga xamante ni yëg na ni moom ñaari jullite ko jur waaye dem na ba majeur kon bi mu majeuree am na engagement bu ko war dañu wax ni doom su juddoo ci diggante ñaari ñoo xamante ni ay jullit lañu ñu rayal ko gàtt wat ko rayal ko gàtt wutal ko tur wu baax ñaar ña ko wutal tur woowa ña ko defal loola ñoom ah, maanaam jëndal nañ ko carte de membre diine waaw maanaam jëndal nañ ko carte de membre diine wala engagé nañ ko ci diine moom nag su demee ba majeur mooy jëlaat ay engagement yi boppam mooy rengagé moom moom nit ki su majeuree su demee ba majeur léegi mat nga mu kallaf léegi nag yaay engagé sa bopp ci l'islam parce que am na loo xamante ni tant que majeur gu l'islam tegula ko mooy tant que nekkagoo mu kallaf moom lañ naan al mukallafu mooy ku ñu togg jëf olof moo naan muskallaf waaye mu euh, maanaam mooy ku ñu togg jëf ki nga xamante ni jëf tege na ci kawam jëf war na ko maam lu jiitu nag ngay egg ci ci âge boobu lépp loo xamante ni def nga ko fi ak lépp loo xamante ni wax nga ko fi loola du compter ci kanamu sunu borom yàlla du ko bind bàkkaar duñ la bindal bàkkaar du kenn du la ko bindal waaye ci mbaaxu yàlla dana la tàggatal bu fekkee diggante boobu yëpp yaa ngi woon di di xenc lu baax di def lu baax diggante boobu yàlla yiw woowu dana la ko tàggatal dugal ko ci sa biir yiw loolu day wane ni sunu borom ku neex a jëflanteel la waaw yàlla jafewul ay mbir yàlla mettiwul ay mbir yàlla lëndëmul ay mbir yàlla xatul ay mbir waaw doomu aadama moom moo jafe ay mbir doomu aadama moom moo ay mbir doomu moom moo lëndëm ay mbir mais sunu boroom moom ay mbiram xatul sunu boroom ay mbiram jafewul sunu boroom ay mbiram lëndëmul parce que li muy def moom yàlla ci jaam bi jaam bi munu ko def ci sunu boroom kon yàlla ku yaatu la loolu rek la lay jàngal li ngay def ci bàkkaar yàlla du la ko bindal ci jamono boobu waaye li nga di jot son na def ci yiw xoolal ni ko yàlla di programmer ñu dencal la ko waaw loolu nag li muy li muy firndeel mooy sunu boroom ku ku yaatu la ak ku laabir la ci digganteem ak jaam ñi moo tax tabaaraka wa taala di la di di di di di di dundee ak yow noonu waaye yow it li la jëkk a war moom la la Cheikh Abdourahmane di jàngal mooy tasxiixu imaan yi waxoon na la ni la mooy nga wéral sa ngëm waaw sa diggante ak sa boroom mooy nga mooy mooy rengagé boobu ma lay wax mooy bi nga majeure nag ah léegi nag di maanaam jëf war na ci sa kaw soo soo mooyee da ngay am bàkkaar soo defee lu ñu la war a bindalee bàkkaar dañ la koy bindal Ah, waaye soo defee yiw dañ la koy bindal mais ci mbaaxu yàlla gis nga âge boobu nga majeur ba keroog ngay dugg bàmmeel loo fi def ci yiw muy benn yàlla multiplier ko ñu bindal la ko fukk loo fi def ci bàkkaar muy benn yàlla may la temps boo xamante ni pour nga réflécir pour génnaat ci bàkkaar bi mooy nga réfléchir pour tuub xoolal jamono bi nga defee bàkkaar ñu may la une de temps maanaam waxtu woo xamante ni dañ la maanaam kenn du bind bàkkaar bi dañuy bàyyi bàkkaar bi noonu ci waxtu woowu nag soo ci tuubee dellu ci sa borom yàlla ni effacé leen bàkkaar bi bu leen ko bind parce que am na ñaar ñu mu la booleel yow doomu aadama bi ñoom ñooy saytu say mbir kiraaman kaatibiina na maa tafaaluuna waaw lépp loo def ñooñu xam nañ ko waaye yiw woo waddal dañuy gaaw bind ko loo def ci yiw dañuy gaawantu bind ko loo def ci bàkkaar dañuy taaxeerlu waxtu su fekkente ni waxtu wi mat na te maanaam defoloo tuubuloo delluwoo ci ginnaaw ñu malaaka mi door a bind benn bàkkaar waaw moom la Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz Dabakh daan wax ni yàlla ni mu baaxee nga def benn mu fay la fukk nga def benn bu bon mu bàyyi la fa sa benn bu bon mu ni mbaaxu yàlla googu yow doomu aadama bi nga judd ba xëy wuy ji sa borom te amul lenn lu ngay ngay xulli ba bi nga dajeeg sa borom say benn benn ëpp say fukk fukk alaa jabdu nee na ku la gën a sàggan amul ndax léeg-léeg ba noon fexe ba par fukk la ñuy bind ci lu baax nee na ba ngaa fexe ba say fukk fukk ëpp say benn benn ba say benn benn du feeñ ndax yàlla war na yàlla may na la chance boo ko mën a defee mu ni nag li njëkk ci nga wéral sa ngëm yàlla mu ni suma maarifatu maa yuslihu bihi farda aynihi waaw li topp nag boo wéralee sa ngëm yàlla ba pare nga xam sa faratay jëmm farda aynihi mooy nga xam sa faratay jëmm gis nga nit ku nekk door digganteem ak boroomam door lislaam sax doomu aadama bi ci boppam war na fexe ba xam li nga xamante ni faratay jëmmam la waaw sa faratay jëmm da ko war a xam loo xam ni yow yaa ko maanaam kenn mënu la koo defal yaa koy defal sa bopp loolu mooy fardu ayni julli nit mënta julli kenn kenn mënta julliwaaleel kenn woor kenn mënta wooraaleel kenn laab kenn mënta ta saa saay bàyyil ma jàpp jàppaaleel la loolu amul fenn saa yi ma woor la loolu amul fenn saa yi ma julli julliwaaleel la loolu amul fenn jullit bu nekk la julli gi bu jotee yaa koy defal sa bopp waaw kenn du ko defal kenn loolu fardu ayni la dafa am lu ñuy wax far maanaam fardu ayni am lu ñuy wax fardu kifaaya fardu kifaaya ñenn nay dem yóbbaale ñenn fardu ayni kenn ku nekk yow la war par exemple mbooloo muy dox romb la nga taxaw wala romb mbooloo mu toog kenn ca mbooloo may dox ni asalaamu aleykum yóbbaale na mbooloo ma yëpp loolu fardu kifaaya la bu kenn nuyoo yóbbaale na ñi ci des mais bu doon pencum olof dañ naan ah de nuyoo na mais gars yi ci des nuyoo ñu te pourtant bu kenn waxee asalaamaaleykum rek couvrir na ñëpp bu dee yow benn nit nga tamit nga romb mbooloo mu toog nga ni asalaamaaleykum kenn ni la aleykum salaam yóbbaale na mbooloo mi toog jarul nga naan leen waa gars yi du ngeen ma fay pour ñu dagg seen waxtaan fay la jaru ko. bu kenn ne aleykum salaam rek moom gàdduwaale na mbooloo mi yóbbaale na ñu toog ñëpp boo rombee ñaari nit ñu toog nga nuyoo kenn ki fay la waale na ki ci des waaye bu dee ñun olof ci suñu xel mu gàtt bu kenn fayee da ngay déggaay romb naa gars yi di leen nuyu mais saay saay fayu ma wala saay fii laa ko romb moog paate ñu toog ma nuyu paate ma mam demba fayu ma ma nuyu abdou mais ma sóora fayu ma ma nuyu moussa mais alsaan fayuma ma léegi yooyu moo lay tardeel il faut te li tax mu tardé la mooy xamoo ni yow nekkete nuyoo bi fardu kifaaya la ki koy delloo it fardu kifaaya la ah su dee booloo lañ bu ko kenn ki defee yóbbaale nañu ci des su dee booloo lañ bu kenn ki fayee yóbbaale nañ ci des ah, kazalika jullee néew waaw ah, tey suñu ab suñu tegee ab néew di ko jullee maanaam far fardu kifaaya la bu néew bi ràññeekuwul ci yow rek far fardu kifaaya la mooy bu néew bi waxul ni su ma faatoo na ma diw jullee rek far fardu kifaaya la il faut que nag néew bi par exemple néew bi man su ma faatoo na ma diw jullee bu boobaa nag yow nekkatul fardu kifaaya ci yow yow jullee néew bi fardu ayni la ci yow parce que néew bi moo la choisir pour nga julee ko bi muy dund wala néew bi faatu na ñu teg ko ñi teew ñëpp ña fa teew ñëpp amul kenn ci ñoom koo xam ni mën naa julee néew bi bu boobaa nag yow mi nga xamante ni yaa ngi doon doxi say soxla wala yaa nga woon ca mbooloo ma waaye jóg nga pour dem mais ñi ñi fi des kenn mënu cee jullee néew bi yow bu boobaa taxaw jullee néew bi faratala la ci yow fardu ay ni lay doon ci yow mais nag bu yooyu amul jullee nga fardu kifaaya la rob nga fardu kifaaya la yooyu ay fardu kifaaya la bu amee ñu ko def am na ñu wàcc ñeneen ñi mën nañ doxi seen soxla bokkul nag ak fardu ayni gis nga xataa ba ci sa dund ci àdduna war nga fexe ba ba teqale al farq baynal fardu kaafi euh, fardu kifaaya wa fardul ayni maanaam nga teqale ko ni nga koy teqalee mooy nga xam ni lii kat ci sama dund sama fardu ayni la dama war a xëy liggéey dama war a def nangam dama war a def nangam yooyu maa koy defal sama bopp loolu sama fardu kifaaya la dama war a dem barab sàngam sama fardu ayni la dama war a dem barab sàngam sama fardu ayni la dama war a wax nangam sama fardu ayni la yooyu nit daf ko war a xam sax ci dundam waaw am yoo xam ni sa fardu kifaaya la mooy maanaam dem fa amul sens wax ko amul sance jëf ko amul sens parce que am na ñeneen ñum gën a war ci yow waaw na ñeneen ñum gën a war ci yow am na ñeneen ñu ko gën a war a mën a def ko que yow yow am na leneen loo war a def lu dul loolu kon bum la tardeel bu la loola tardeel su la leeree ni loola ngay def du fardu ayni ci yow fardu kifaaya la ci yow am na ñeneen ñu ko war a mën a def bum la tardeel su la leeree am na keneen ku ko war a mën a wax bum la tardeel parce que du sa faratay jëmm fardu ayni mooy faratay jëmm loo xam ni jëmm ju nekk yaa koy defal sa bopp jënn jëmm du ko defal kenn loolu la ñuy tuddee fardu ayni fardu kifaaya jëmm ji bu jëm yëpp daje bu ko yenn jëm defee yóbbaale nañ yenn ya loolu it bu la tardeel gis nga loolu ni koy xamee ci sa jaamu yàlla noonu nga war a fexe ba xam ko ci sa dund ba du la tardeel waaw moo tax mu ni suma maarifatu ma bii ma ma la nga xamante ni yuslihu dana yëwee ne bii ca loola farda ay nii li nga xam ne ay faratey jëmmam lañ mu indil la ci nag yenn leera mun la kaxkaami salaati ni ki attey julli waaw julli safara tey jëmm la parce que kenn du julli waaleel kenn ah, nit ku nekk yaay jullil sa bopp kon julli safara tey jëmm la yow war nga fexe ba xam atte yi ngay jullee war nga góorgóorlu ba jàng atte man kat lii mooy defar sama julli lii mooy yàq sama julli su ma defee lii julli gi baax na su ma defee lii julli gi baaxul su ma defee lii damaa war a ju damaa war a sujjo damaa war a sujjoot lii wala lii mooy eh, eh, eh, defaraat julli gi wala ma eggee fii nag moom julli gi mënatul a baax yooyu yëpp jullit bi daf ko war a fexee xam nii laay laabe nii laay jàppe nii laay moo tax mu ni la kaxkaami salaati wa tahaarati waaw wa siyaami attey koor attey attey laab attey julli nan lañuy ñuy laabee nga xam ko waaw bi ci njëkk nag sax gën ceet doy waar mooy li dooma li li ñu gën a sàggane te mooy ferlu waaw li ñu gën a sàggane ñun te mooy ferlu maanaam fexe ba boo demee bay jàpp daray sobe dootu takk ci yow waaw loolu mooy ferlu bu ñuy wax ferlu nag ci góor la gën a mittee waaw parce que góor bu dee tuur ndox ndox miy génn ci moom ci ak lay jaar te sidit yooyu muy jaar day lemu ndax moom day toog léeg-léeg mu taxaw léeg-léeg mu tëdd banku léeg-léeg mu tëdd tàlli léeg-léeg mu nàngam te lépp ci benn raakool lay jaar benn sidit la ndox moomu di jaar léegi sidit googu ndox moomu di jaar ak façon ngi ngi yére yi nuy sol léegi léeg nga sol jiital boo xam ni maanaam day am élastique élastique booba day day day day naj sidit gi surtout boo téyee tuur ndox lu yàgg boo waree tuur ndox di ko muutale di ko muutale ba mu xaw a yàgg soo demee di tuur ndox en général lépp du génn du jañu waaw lépp du génn waaw parce que bi nga dikkee ak yàkkamti gi noonu ndox mi dina génn génn génn génn mais bu fekkente ni doo ab ferlukat ndox mi dana desaat ci biir waaw moom la cheikh alhaaji malik radiallahu anhu daan wax mag ñi naan leen moytu leen di tuur ndox ci jàkka ji bis ñu ne ko waa Malick nan la nit di am demee ba ca jàkka ja mu fay tuur ndox mu ni déet nit léeg-léeg mu tuur ndox ba pare te du ferlu bu fekkente ni ferlu woo mën ngaa jàpp dem ba toog ca jàkka ja yëg ni am na luy toq ci yow te loolu am na ñu muy dal waaw da ngay ferlu ba dem toog ca jàkka ja wala ferlu ba dem jàppi ba pare yëg ni am na leneen luy toq ci yow moo tax soo duggee soo dee tuur ndox nga war faa jël temps boo dee tuur ndox nga war faa jël temps te mooy yoon salaay salaam dafa jàngale ni bu dee góor mooy tuur ndox bu yegsee na sukk na jonkan maanaam na sukk mais nag foofu it jar na def seetlu parce que façon yi toilette yi amoon bu njëkk ak yi am léegi du benn parce que bu dee léegi lu ñu karole la am na noo xamante ni boo ni ci sukkee bu fekkente ni du loo xam ne dañ ko préparer pour tuur ndox mën na tisaat dellu si ci sa kaw mbaa mu tis laal say yére loolu mën na nekk waaye su fekkente ni loolu amul da ngay jonkan boo jonkanee tuur ndox ba yëg ni ndox génnatul nga jug taxaw soo jugee taxaw ginnaaw bi nga jonkanee ba yëg ni ndox génnatul jugal nga taxaw soo jugee taxaw Moustapha nee na doxal ñaari paa ci sa kanam dox ñaari paa ci sa ginnaaw mooy avancer tuuti reculer waat tuuti fa nga tuuree woon ndox soo doxee ñaar ñetti tànk dellu siwaat ñaar ñetti tànk léegi la desoon ca sidit ga loola day day day day génn léegi nag sooy dox noonu ginnaaw tuur nga ndox bay dox dangay jël sa loxo càmmoñ nga dékk ci sa bopp awra nga xam ne lu toq ci ndox day toq sa loxo càmmoñ mais boobu it na fekk sa loxo càmmoñ nga tooyal ko ak ndox ba pare parce que tuur ndox dafa xaw a niin te su fekkee sa loxo càmmoñ tooyaloo ko ak ndox da nga bàyyi ndox mi toq ci noonu rek boo ko raxasaatee ak ndox mën na bañ a set moo tax dañuy bëgg sa loxo tooy bu sa loxo tooyee nga dékk sa awra bi ngay jéggat di dem di dox nga dékk ko ci loxo càmmoñ bi ëmb ko ci nii soo ko ëmbee ci loxo càmmoñ bi dox ñetti tànk ci kanam doxa arrière dellu siwaat fi nga noon jonkanaat soo jonkanaatee soo bàyyee di nga gisaat ni am na leneen luy génn soo gisee ni am na leneen luy génn ba dara toqatul dégg nga de am na dara maam lu génn ba dara ci tuur ndox mi toqatul Moustapha nee na léegi nag nga jàpp ci catu ci bopp bi fi mu sax fi cat li sax nga di ko boxañ ndànk di ko ratt ndax sidit la ba mu egsi ci cat li nga wiccax defaat ko beneen yoon ratt ko ba mu egsi ci cat li nga wiccax soo rattee ba dara génnatul mu leer la ni tuur ndox mi jeex na ci biir sidit gi nga door a jël ndox mi doora a raxas awra bi noonu la ñuy ferloo bu dee góor parce que tuurum ndoxu góor fi muy jaar la moo tax ak fi muy génne ni mu bindoo loolu moo tax nga war a ferlu ba loolu deñ nga door a jóg nag raxas say loxo ba mu set nga door yegg nag door a jàpp waaye su fekkente ni da ngaa ñëw rek cararararara rek aca rek fëgg daal di sotti ndox mi noonu daal di duggaat sa biir euh, euh, euh, kii jàpp dem nangam mais attends soo ko defee jàpp nga ni yow tuur ndox mi jeex na mais jeexul parce que desaat na ci sidit gi léegi loolu mooy waral nga toog tuuti yëgaat am ay toq-toq yooyu wàcc te toq-toq yooyu di wàcc benn bu ci génn sobe la waaw te loolu lépp nag li la ko yóbbee du daara lu dul yàkkamti waaw dara lu dul yàkkamti moo tax ñu lay wax ni góor su duggee góor su duggee ci toilet walla góor buy tuur ndox warta gaaw war na faa durer parce que li muy maanaam tuurum ndoxam warta gaaw lu tax warta gaaw c'est parce que dafa war a ferlu maanaam dafa war def ab temps waaw mais taxaw rek carar dem sa yoon bu dee mbedd mi noonu bu dee douche bi noonu bu dee leneen noonu bu dee leneen noonu waaw léegi nag dangay jàpp ba pare ba dem ba ya ba yaakaar ne yow yaa ngeen jàpp fekk sa njàpp li toj na dem di julli fekk julli woo ci njàpp moo tax mu ni ah, laab googu il faut nga bàyyi ko xel ba pare jàng ko ba xam ko ni ngay xamee sa laabum toj noonu nga war a xamee sa laabum sobe ni ngay prévoir sa laabum sobe ba nga xam ne takkoo benn sobe ni ngay prévoir sa laabum toj ba mu leer na ni da ngaa toj la dem jàppiwaat noonu ngay prévoir sobe si tamit ba doo ko takk mu ni wa siyaami nag ak sa atte koor waaw atte yi nga xamante ni moom moo war ci weer wi ngay woor na nga ko xam na nga jàng atte yi ba xam ko na nga vérifier atte yi ba xam ko xam ni lii la ma koor gi may li su ma wooree lii laa war a def nii la ñuy wooree heure bii laa war a dog heure bii laa war xëdd koor gi lii la ma diggal koor gi lii la ma tere loolu loolu dafa war ci yow atte maanaam nga xam ate yooyu ñu la sant ci bëccëgu weeru koor gi da nga ko war a xam atte yi la sant ci guddi gi da nga ko war a xam lépp loo xamante ni weer wi daf ko làmboo te yow bi nga koy def da ngaa war a xam loolu mais soo ko xamul loolu mooy safar far loolu mooy sa fardu ayni waaw mais yeneen détails yi ngay lijjanti pour xam ko du sa fardu ayni loolu mooy sa faratay jëm waaw te da ko war a xam yow jullit bi en tant que jullit da nga ko war a xam lii mooy yàq sama koor su ma ko defee sama koor yàqu na lii mooy wàññi sama yoolu koor comme genre niñ koy waxee tey ji yow mi woor def yenn yenn bàkkaar yi yàqul sa koor mais da ko day wàññi yool ba waaw maanaam yool bi nga waroon a am ci koor gi moom la bakkaar bi di wàññi masalan yow da ngaa woor ci biir koor gi benn yitte rek nga am mooy jëw waaw maanaam danga ngaa woor ba pare di jëw jëw gi yàqul koor jëw yàqul koor mais day wàññi yoolu koor gi léegi soo yendoo jëw yow fan nga jëm soo ko yendoo fan nga jëm waaw yàqul koor gi nag mais nag dina wàññi yool ba looloo tax ñu ni la boo wooree fexeel ba cër yi la yàlla jox yëpp nga woorloo ko boo déggee cër yi la yàlla jox nga woorloo ko mooy maanaam ni ngay woorloo sa gémmi sa sa biir ba du encaisser dara noonu ngay woorloo say cër bu gémmi bu ko gémmiñ gi wax man woor sa gémmiñ dafa war a woor ba du wax lu xaraam sa tànk dafa war a woor doo ko teg fu xaraam say loxo dafa war a woor doo ci def lu xaraam sa sa sa nopp yi dafa war a woor doo ci déglu lu xaraam mais sa awra dafa war a woor doo ci def loo xaraam ni ngay wooralee sa sa biir bi noonu ngay wooralee cër yi ci des yëpp waaw na du caage ni soo ko defee day yàq sa koor soo waxee lu dul dëgg ci bëccëgu weeru koor yàqul sa koor mais wàññi na sa mën day wàññi sa yoolu koor waaw koor luy dugg moo koy yàq mais koor luy génn du ko yàq waaw comme ni comme bu dee bu dee nag contrairement ak njàpp njàpp luy génn koy toj waaye koor luy dugg a koy yàq njàpp moom luy génn koy yàq luy génn mooy yàq njàpp luy dugg mooy yàq koor mais koor luy génn yàq ko koor luy dugg a koy yàq njàpp luy dugg yàq ko njàpp luy génn a koy yàq moo tax ñoom ñaar bokkuñu kii liy dugg a koy yàq kii liy génn a koy yàq waaw njàpp njàpp luy génn mooy moo koy yàq koor luy dugg moo koy yàq waaw mais nag war nga cee def yitte comme benn weer la nga profitoo ci biir weer woowu ba nga xamante ni ëllëg bu weer wi jeexee dinga ci am bonus boo xam ni yiw woowa bu la ko yàlla fayee mën na laa dund mën na laa garanti ba weer wi dellusi si comme ni ko yonent bi salaay salaam jàngalee te mooy fukki euh, euh, yàlla xaajal nañu ko ñetti xaaj fukki fan yi yërmande la yonent salaay ni la dabu ci yërmande yàlla nan nga ciy daboo yërmande yàlla Moustapha ni lépp loo yaakaar ni yërmande ci jaam ñi teg ko ci kaw jaam ñi yërëmal jaam yi yàlla yi yërëmal ñi nga yilif yërëmal yërëmal yërëmal mu ni yërmande googu soo ko defee yàlla wëlbatiku yërëm la waaw moo tax mu bo bokk na ca nag nga xam saa tey laab xam saa tey koor mu ni léegi nag waya ji bu war na alayhi ci moom mooma ñu togg jëf lan moo ko war an yu xaafida ala xududullahi mu wëttandiku mu def attention mu moytu frontières yi yàlla yi dëëli yàlla mag ñi ñoo ko daan firee na moytandiku dëëli yàlla yi dël mooy li yàlla ni yem ma fii kon yem ko foofu waaw bu la sun borom ne fii mooy frontière bi bu ko jéggi dafa am ay frontière naanal ndox naanal meew waaye bul naan sàngara kon yàlla wutal na la frontière naanal ndox naanal meew waaye bul naan sàngara yàlla wutal na la frontière lekkal xar lekkal nag lekkal bëy waaye bul lekk ndeg bul lekk mbaam bul lekk xaj bul lekk nangam yàlla wutal na la frontière takkal soxna nga nekk nga ànd ak moom waaye koo takkul bu ko jox loxo yàlla wutal na la frontière maanaam diine lépp yàlla da la cee wutal ay frontière waaw mbooleem li nga sunu borom tabaraka wa dogal na ni digal na la ko yow jàmm bi utal na la dël maanaam foo xam ni falay yem ah, fii mooy frontière bi bul bul fii mooy frontière bi bu ko dépassé bu fii la fi lii la yàlla santaane lii la tere mais am na séparation am na lu leen séparé ñoom ñaar waaw soo takkee soxna dalaa maanaam dalaa lew gis nga bi nga ko takkee mu lew la yàlla daganal la lépp ci seen diggante gis nga loolu secret bi nga ciy jàngat sax mooy xoolal dangay gis benn góor ak benn jigéen ñu nekk ñetti at nga gis ñu nekk ñeenti at nga gis ñu nekk juróomi at nga gis ñu nekk fukki at fukki at yaag ndaw si yéen a ngi nekk ñemewuleen a fanaan ñemewoo fa astaghfirullah ci ñi ko ñemewul ñemewuleen a fanaan fukki at yëpp am na loo xam da nga koy làq ci moom kenn du kenn du la gis ak moom fukki at yëpp ñeme woo ko présenté ñenn ñi fukki at yëpp yenn yi ñeme woo ko ci moom benn ngoon wala benn bëccëg ay nit daje daal di ne diw may nañ ko diw ci farata yàlla ak su sunnas muhammad nga joxe can can la nekk lu néew ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu boole leen yéen ñaar ci genn tàkku tàkkusaan ndigal loola jib su la neexee ñu jàpp nga jàpp ci loxoom ànd ak moom ci diggi mbedd mi dugal ci sa néeg su la neexee nga jàpp ci loxoom ànd ak moom lu la neex def te kenn du ni la lu tax mais loolu mooy frontière suñ borom yi waaw yàlla dalaa wutal frontière sa diggante ak moom soxna sii kat lewu la ginnaaw lewu la yemal ci bul ko xool bul ko nuyu bul ko jege loxoom bul ko laal ko laal bum la laal parce que loolooy frontière sunu boroom bi léegi nag yow mi nga xamante ni majeur nga dafa war ci yow maanaam sa dafa war ci yow lu waajib mooy lu war loo war a def ci yow nga maanaam nga moytandiku frontière yi suñu borom yi mooy dëli suñu borom yi wa yàqi fa nag mu taxaw temm taxaw temm amri yi ci def ndiggali yàlla yi wa te bàyyi ay tereem waaw nga taxaw ci def ndigali yàlla yi te bàyyi ay tereem waaw astaghfirullah wa yajibu war na alayhi ci mukallaf an yuxaafida mu wattandiku ala xududillahi ci frontière yàlla wa waaw wa fa te mu taxaw inda amri yi ci def ay ndigalam wa nahi te bàyyi ay tereem nga taxaw tem ci li la yàlla digal nga def ko waaye taxaw tem ci li la yàlla tere nga bàyyi ko taxawal tem ci li la yàlla digal nga def ko taxaw tem ci li yàlla tere nga bàyyi ko li la sun boroom digal yaa xay nekkal ci digali yàlla yi ni la ko yàlla digalee di ko def yàlla moo ma digal naa ko jaamu yàlla moo ma digal nanu julli yàlla moo ma digal nanu woor yàlla moom ma digal naa dindi sama làmmiñ ci deru góor ñi yàlla moom ma digal naa moyte naa bu ma njaaloo yàlla moom ma digal naa bàyyi sangara yàlla moo ma digal yooyu la yàlla digal ndigalam yooyu dangay ngay taxaw temm ci def ko wa na yii bàyyi ay tereem nga taxaw temm ci bàyyi ay tereem waaw keroog bi nga majeure war nga xam ni responsabilité bi ci sa kaw la la la tege ginnaaw majeur ga rek responsabilité bi ci sa kaw la tege waaye diggante bi doom juddoo ba ba muy majeur boobu responsabilité nag ci ndeyam ak baayam la nekk waaw moo tax keroog bi xale bi juddoo ndey uuf ko baay tiim ko ñu wut tur jox ko keroog ba mu juddoo yow bàyyi nga tiim ko ndey uuf ko la yàlla ni yéen ñaar ñooñu bàyyi leen xel ni responsabilité bu rëy laa teg ci seen loxo mooy jox naa leen koo xam ni dafa set wicc jox naa leen koo xam ni amul bakkaar jox naa leen koo xam ni taqul dara yéen ngeen di bég di ree fekk yàlla mi ngi leen di déclarer ni am na responsabilité bu ma leen jox ci xale boobu bu ngeen koy delloo si ci man fexe leen ba bu mu taq dara bu ngeen koy delloo si ci man fexe leen ba bu da mu ànd ak dara bu ngeen koy delloo si ci man fexe leen ba bu ba mu sete ma jox leen ko suy ñëw na setewaat noonu moo tax nga moytandiku ay tere yàlla te nag def lim la digal loolu bi nga majoré sa engagement bopp la nag a mu ni waya tuuba nag te mu jéggalu mooy tuub ilallahi jëm ci yàlla nga jéggalu sunu borom jéggalu say bakkar jëm ci sunu borom subhanahu tudd na ma selluk sunu borom nga qabla an yasqata lu njëkk muy jéppi yi ci moom kallaf boobu waaw parce que yàlla du mer ndax amul xol ku am xol mooy mer te yàlla amul xol yàlla day jéppi ab jaam mais yàlla du mere ab jaam ñun ñoo yor xol di mer mais yàlla amul xol bay mer yàlla day jéppi jaam bi mooy digal na la defoo lim la digal tere na la bàyyi woo lim la tere yàlla jéppi la mais gis nga yàlla lum la jéppi jéppi du la rey te sa heure dee jotul yàlla lu la jéppi-jéppi du tee sa wërsëg wi nga war a jot mu jox la ko yàlla lum la jéppi-jéppi du tee say fan ni nga war a dund nga dund ko yàlla jéppi la du tax mu rey la jéppi la du tax mu xañ la sa wërsëg jéppi la du tax nga du tax dara li war sa diggante ak moom du ko def moom sunu borom waaye li tax loolu lépp di am mooy yàlla xam na ni doo ko rëcc ak lim lay jéppi-jéppi yow jaam sunu borom xam na ni doo ko rëcc ndax am na rendez-vous boo xam ne faw ngeen daje te mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bis booba munoo ko rëcc ala kulli xaalin taxaw yàlla atte cër yëpp moo tax sonn ci moo tax say Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum daan wax ni a asabuuru yi fi yi ñuy firee muñ mu ni bu jëmee ci yàlla bul ko firee muñ ndax yàlla amul xol bu muy muñee waaye danga naan a asabuur moom sunu borom ku lu la lu mooy kuy taaxeerlu la parce que dara du ko raw waaw te olof yi ñooy wax ni sàcc bum la leer ni du raw jarul nga yàq say nelaw nelawal ba yandoor boo yeewoo fekk fa mu toog nga jàpp ko te ñun noonu lañ mel ci sunu borom munuñu koo rëcc munuñu koo raw moo tax sonnul ci ñun waaw ah. moo tax mu ne nag bu boobaa nag yow li nga war a bàyyi xel dëgg-dëgg mooy yow jaam bi nga jéggalu sa borom bi nga majeure waaye nag tuub googu ngay def sa digganteeg sa borom da koy gaawe bala laa yàllaa jéppi moo tax ñu naan la bokk na ci maanaam charte yi ngay tuubee nga gaawe ko gaawal tuub même su dee majeur nga bu yàgg sax boo defee bakkar te yëg ni def nga bàkkaar gaawal tuub waaw tuub gi wax astaghfirullah ci làmmiñ wi est ce que doy na déedéet parce que ci xol bi lay dépare nit ki def bàkkaar regretté ko ci xolam regret boobu moo gën a rëy ci yàlla baatu astaghfirullah rëccu gi nga rëccu bàkkaar bi nga def yëg gi nga yëg ni da tooñ sa borom nga rëccu ko loolu dafay rëy ci sunu borom ah day rëy ci yàlla mooy maanaam regret bi nga am ak rëccu gi nga am ci bàkkaar bi nga def moo tax mu ni suba moo tax mu ni maanaam nga tuub lu njëkk yàlla dina la jéppi bala laa yàllaa jéppi nga tuub ah, mu ne nag wa surutu tawbati sarte tuub nag maanaam maanaam charte yi nga xam ni boo dee tuub moom nga war a def mu li dodo ma alaama faata ba ca njëkk mooy mooy mooy mooy mooy mooy rëccu mooy li ma la sànq am regret ci li passé maanaam nga regretté li nga defoon mu passé waaw an nadamu alaama faata mooy regretté li nga defoon te mu passé waaw ko bu demb doon tey wallahi du ma naan sàngara mu naqari la ci sa xol bu démb doon tey wallahi du ma njaaloo mu naqari la ci sa xol bu demb doon tey wallahi du ma fen mu naqari la ci sa bu démb doon tey wallahi du ma nekk rambaaj mu naqari la ci sa xol bu démb doon tey duma duma duma duma yooyu mu nekk lu lay naqari ci sa xol bàkkaar boobu nga doon def gis nga rëccu googu nga koy rëccu dara gënu koo rëy ci tuub waaye nag wa niyatu allah yahuda ila dhanbin fi ma baqiya min umri waaye nag da nga yéene waale ci sa xol ni man bàkkaar bii may tuub dootuma ko def ba keroog may sàngoo suuf euh, dama dama dégg benn mu kuy def musique mu wax ni da ngay am na loo xam da nga koy bàyyi balaa deew a ñëw donc kon moom ci waxin li mu nekk jàpp na xam na ni kon daganul mu ni da ko maanaam da nga ko war a bàyyi balaa deewa ñëw te man damay wax ni ñun ñu ñuy tudde maanaam ñu tudde seen bopp ay jullit ñi ci ëpp ci façon dund boobu la nekk mooy da ngay def bàkkaar mu leer la ni li ngay def bakkaar la yàlla da koo tere mais yaa espere toujours ni non xëy na dinaa gudd fan bala maa dee bàyyi ko te am na loo xamante ni boo ci chronique doo ko ba doo ko bàyyi am na koo xam ni day jaay boppam mais bi ko waaje laaje lu maanaam li ngay def nii est-ce que xam nga ni dafa xaraam dañu ko waa xam naa ko mais du sama sago lan du sama sago yow en tant que jullit nga ni ab jullit nga ku la ni doo jullit nga xeex egg nga sax ci jullit gi nga doon bokk nga ci ab tariqa am nga sëriñ muy sa wasila nga ni da ngay jaay sa bopp di waate sëriñ boobu waat ci turu sëriñ bi nga yaakaar ni li la ci du ni ni du sa sago an kay sa sago la lu xaraam ak lu mu bëri bëri wërsëg lu xaraam la lu dagan ak lu mu néew néew wërsëk lu dagan la waxoon naa la fii alxalaalu bayinun wal xaraamu bayinun wa maa baynahuma mutashaabihaat li dagan leer na li xaraam leer na li ci diggante bi nag moom mooy li lënt soo mënta def lu dagan bàyyi fa lu dagan soo mënta def lu dagan bul dem ci lu xaraam yemal ci li lënt muy li nekk ci diggante dagan ak xaraam waaw mais yow defoo lu dagan song lu xaraam te naan yàlla bëri na yërmande ñun ñëpp lay baal d'accord yàlla bëri na yërmande mais yàlla bëri yërmande tax mu artu la di wax la leen nangam bëgguma ko man suñu man sa borom bi la bind nangam digaluma la ko man sa borom bi la bind yàlla dafa clair ci ay waxam lu tax nga bind nit ak jinne mu ni lenn rek laa soxla ci ñoom ñu jaamu ma lu dul loolu soxlawuma ko ci ñoom wa maa xalaqtul jinna wal insa ilaa li ni benn objectif laa am ci nit ak jinne mooy nañ ma jaanu jaamu bëgguma ci ñoom wërsëg soxlawuma luñ ma jox mënuñu ma leel amul man du ma lekk bañ may jox lekk kon lenn laa soxla sama diggante ak ñoom mooy nanuma jaamu mais jeex na loolu kay wax dëgg yàlla leer na naññ nan ma jaamu jaamu gi rek la yàlla soxla moo tax nga yéene nag ni dootoo def benn bàkkaar li des ci sa dund dootoo def bàkkaar mais nag li ñuy bañ mooy tuub aljuma defaat ko samedi tuub dimanche dellu altine tuub talaata demaat àllarba yooyu la bañ waaw dañu wax nit ak nit sax sa yow nit ak sa moroomum nit mu def la dara ni la baal ma nga ne ko baal naa la mu defaat la ko ni la baal ma doo ko baal donc ko naan yaa ko tey ah te li olof naan kuuk mënees na koo jéggale mais kuuki kuuk boroom a ko tey ah. nañ koo jéggale mais kuuki kuuk boroom a ko tey yaa ngi dégg moo tax nga yéene ni dootoo defaat beneen bàkkaar wa an yatruka ak ak mu bàyyi bokk na ci charte tuub wa an yatruka ba mu mu bàyyi almaasiyata mooy yàlla fii saatiha ca waxtu wa mu tuubee in kaana nem nekkoon na mu mutalabisan daan def bihaa ci mooy googu waaw keroog bi nga tuubee rek arrêteel mooy moo xam yow mi nga xam ni da ngaa woon ci lislaam la moo xam yow mi nga xam ni juddu woo ci da nga xëy dikk tuub dugg ci lislaam dangay ngay arrêté lépp loo xam ni mooy yàlla la am na mooy yàlla goo takkoo woon da nga daan sàcc da nga daan wax lu dul dëgg danga daan njaaloo naankatu sàngara nga woon ab rambaaj nga woon yooyu bàkkaar nga takkoo woon keroog bi nga tuubee da koy bàyyi waaw ndax wax naa la ni moytul frontière yi yàlla yi yàlla teel na laa araftu kon soo demee ba yow nga bëgg a engagé wu ci diine bokk ci ñi yàlla di wax bu yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu nga war cee gis sa bopp bu boobaa critères yooya da caa bokk ca charte ya nga rëccu lépp lu passé yéene ni doo ca dellu waaye bàyyi bépp mooy yàlla boo doon def bu fekkoon takkoo nga ak moom dang koy bàyyi bépp mooy yàlla boo doon def bu fekkee bu fekk bu fekkoon danga ngaa takkoo ak moom da koy bay in kaana bi biha wala wala yaxillu lahu an yuwaqira tawbata waaw mais du ñu ko permettre du dagan benn yoon ci ab julit du dagan benn yoon ci ab jaam muy yéexe tuub waaw moom laa la dox sànq ne la gaawal tuub waxtu wi bakkaar bi rote mu leer la ni def nga bàkkaar gaawal jéggalu sunu borom yàlla bëri na yërmande waaw mais gaaw a jéggalu jé yow lay dimbali mooy def nga bakkaar bi rek tuubal rek noppalu kon bu ko yeexe an yu waqira tawbata loolu laa yaxel ko yeexe gaawal rek nga tuub bu ci mën a doon nag gaawal tuub ko xam nga ñun nag dañoo am problème mu damay def bàkkaar war ko tuub ëllëgee ma tuub mais damay xool bakkaaru keneen maanaam dama naan diw li muy def a gën a garaaw li may def léeg-léeg sax nga wax ko nit nangam bàkkaar la mu ne waay sëriñ saa ngi fi di ko def waa et eh, après bu ko sëriñ si dee def daa tee mu nekk bàkkaar loolu day wane responsabilité bi sëriñ si am waaye léeg-léeg di wax nit nangam dafa xaraam mu ne pourtant diw da koy def nangam dafa xaraam mu ne pourtant doomu diw da koy def doomu diw daa moom diine wala doomu diw mooy diine wala doomu diw la yàlla yónni wala doomu diw mooy yàlla yàlla li mu tere ñëpp la ko tere li mu santaane ñëpp la ko sant soo defee li xaraam def nga lu soo defeelu dagan def nga lu dagan yàlla santul ma sàmba bàyyi ma demba santul ma demba bàyyi ma sàmba ñëpp la ci yemale ah léeg-léeg nga ne sax waaw cigarette dafa xaraam tux dafa xaraam mu ne non lu tax lu tax diw di ko def wala lu tax diw di ko def wala diw da koy def eh, ah diw mooy kan yàlla daa am exception ci li muy tere ak li muy daganal ak li muy xaraamal amu ci waaw loo ci amul ngànt ca nga bokk waaw sàngara dafa xaraam ak ku la mën a jur munoo koo daganal njaalo dafa xaraam ak ku la mën a jur munoo koo daganal lépp lu ni la xaraam na ak ku mën doon munu dama ni ci gàttal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mii sangu àdduna ak àllaaxira doomam su defee lu xaraam def na lu xaraam kenn munu ko tudde lu dagan firawna mi gën a su doomam defee lu dagan def na lu dagan ci waxin waaw ci waxin donte firawna amul doom mais dama laa bëgg a ni ki gën a yées ci àdduna su amoon doom doom ja def lu dagan lu dagan la def ki gën ci àdduna ak àllaaxira mu yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su amoon doom doom eh, eh, ay doomam buñ defee lu xaraam lu xaraam lan def li dagan ak li xaraam dafa am dafa am séparé séparation ki def lu dagan lu dagan la def ak kum mën a doon waaye ku def lu xaraam ak kum mën a doon lu xaraam la def amaa jëmmi nag di ko layal loolu moom la engagé amaa jëmmi lii la ko yàllay def loolu yàlla la engage waaw la la la la nu mu tuddati la góor ga waxoon euh, xawma ma est que du xaw ma bàyyi ili la xaw ma bi ko jabar ji ne euh, nijaay yëg nga ni mbindaan mi dafa ëmb mu ni ko loolu affaire am la mu ni ko dama te te dama koy génnee kër gi mu ni ko loolu sa affaire la mu ni ko loolu rek du ma ci am mbindaan mi nee na yaa ko ëmbal mu ni ko loolu sama affaire la mais wax na dëgg nag kenn ku nekk ak sa affaire am na loo xamante ni yoonu doomu aadama newu ci parce que nit du àtte jaam déedéet jaam du àtte moroomu jaamam comme charia dogul ci sunum réew déedéet waaye nag da nit sañ na ni nangam dafa dagan nangam dafa xaraam léegi yow miy def lu xaraam yàlla da lay lakk yàlla da lay baal yàlla da lay nangam loolu yàlla la waaw yàlla dina la duma yàlla la yàlla da lay baal yàlla la yàlla dina la ci génne yàlla la doo ci génn yàlla la loolu programme suñ borom la yoonu nit nekku ci nit lim mën mooy lii ngay def daa dagan lii ngay def daa xaraam loolu nit la war parce que moom la ko yàlla sant amaa jëmmi nag atteb sunu borom loolu atteb sunu boroom la limu la ci wax ni mooy atte bi nit sañ na la ni yàlla nee na ku njaaloo nañu ko dóor téeméeri yar loolu atte la loi fi yàlla teg la waa léegi man mi njaaloo kenn dooruma téeméeri yar mais yow da ngaa dajeeg ma sañ a man ci mbedd mi naan dang may dóor téeméeri yar da nga koo xalaat boo ma ko boo ko jéemee ci kaso bi ngay fanaan parce que sunu luwaa moo def noonu mais lee atte yàlla la léegi nag atte yàlla boobu sunu borom di atte ab jaam du ko ci wuutu comme sant nañu ñun jaam ñi ñu àttewoo ko ñu lànk dangaa naan sàngara ñu war laa dóor juróom-ñetti fukki yar charia doxu fi kenn dóoruloo ko loo léegi nag sa digganteeg sa borom yaa xam yaag yàlla bu la yàlla dee baal yàlla la bu la yàlla dee mbugal yàlla la loolu sunu borom la mais jaam bi amu ci amu ci lu muy atte loolu yàlla moo koy moo koy atte léegi nag li nga xamante ni diggante jaam la ak moroomam lenn lañ seq mooy jaamul su fekkee war ngaa jaamu lii yàlla daf la koo digal lii yàlla daf la koo tere lii la yàlla bëgg lii la yàlla bañ loolu loolu moo war jaam bi ala kulli xaalin moom loolu da koo war a wax moo tax nag su fekkente ni da nga def bàkkaar mu ni la gaawal nga tuub ko bul yéexe tuub gi walaa yaquula xataa yahdiyani allah bu mu wax ni batama yàlla jubalee waaw loolu loolu waxi irresponsable dëgg la saa li ngay def dafa xaraam da ngaa waamee fi waamee fii yàllaa fi nekk ah. waaw lépp suñ borom la ah. bu ko neexoon du mel nii ah yàlla mooy bind ni ñi quoi ku nekk ak lim la nattoo sama nattu la ko a sama nattu yàlla dafa wax lu leer dama leen a bind digal leen tere leen yaay tànn fa ngay jaar ana inda vanni abdi yi loo góorgóorlu ci suñ borom yàlla jàppale la ca waaw waaye mu ni bul wax bukk ni batama yàlla jubale mu ni ndax wax jooju min alaamati shaqaa'i wal faxtaa'i gis nga waxi yàlla kum nam ma jubal nga jub loolu waxi ku nar a texee di dëgg la waxi kàccoor ab kàccoor rek moo naan waaye yàlla kum nam ma jubal nga jub loolu waxi kàccoor dëgg la gis nga njub gi yow jaam bi yaa koy xencu yaa koy saytu yàlla fekk sila la ca waaye yàlla fi nekk ah. waaw ah, yàlla ku mu bëgg a jubal nga jubaa mais affaire yi suñ borom la waaw ah, loolu waxi ku na ak alkula rek mooy mooy mooy wuyu boo xamante ni maanaam bandaari moo xam ne xamul fu muy teg tànkam moo tax mu ne min alaamati chaqaay wal faxchaay loolu dafay dafay dafay dafay firndeel sa texee di waaw mu ni koo dégg mu di ko wax limaale ko ci ñuy texee di day firndeel sak texe di noo seulement day firndeel sak texee di waaye day wane ni yow moomu di ko wax di bokk nga ci ñi nga xamante ni ay kàccoor lañu waaye doo ca yem wa tamtir basirati day wane ni it sa xol amul leer waaw parce que ab jullit bu xolam amee leer am na loo xam ne xalaatu ko ci àddunaam ab jullit bu xolam amee leer am na kàddu yoo xam ne du génn ci gémmiñam waaye am na kàddu yoo xam ni gémmiñ goo ko dégg xamal ni boroom xolam amul leer am na yenn kàddu yoo xam ni gémmiñ goo ko dégg xamal ni boroom xolam amul leer mais xol bu amee leer boroom du wax yenn wax yi am na wax yoo xam ni ku xolam amul leer dëgg moo koy wax mais bu sa xol amee leer nga éviter ko waaw ku yàlla na ma jubal nga jub mu ni loolu waxi ku texee di la non seulement waxi ku texee di la waaye waxi kàccoor la non seulement waxi kàccoor la waaye waxi ku xolam amul leer la bu sa xol amul leer yaay yaay réactionné noonu mais ku xolam am leer du réactionné noonu waaw ku yàlla na ma jubal nga jub mu ne ku xolam am leer du ko def léeg-léeg nga gis koo xamante ni day nekk ci lu ko neex ba bëccëg te boo ko laajee li dagan mu limal la ko nga laaj ko li xaraam mu limal la ko soo ko waxee mu ne noonu yàllaa ko lii la yàlla namm ci man déedéet da nga naan lii laa tànn ci sama àdduna waaw léeg nga gis benn léeg nga gis koo xam ni la muy maanaam li muy def moo la gën a xam ni dafa xaraam mais soo ko découvrir woon ba ni ko sawaay lii ngay def yàlla da koo tere danaa la kenn ku nekk am nga lo doyan ah. waaw kenn ku ne am nga lo doyan ah. sa bopp <laughs> waaw sa bopp waaye nag dëgg la gérer sa bopp waaye defal li la yàlla sant yeneen sallallahu alayhi moo taxawoon ca Arafa wax ni lenn loo xam mu juge ci man jige ci yàlla jaar ci man muy ndigle sunu borom mbaa muy bu man yonent bi donte benn baat nga ci xam wala tuuti nga ci xam jottalil ma ko lu mu ndaw ndaw balligu anni aya lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw jottalil ma ko lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw jàllale ko parce que kàddu googa ngay wax mën na lor asafurlaa nit mën na ko dégg mu jariñ ko ba tax mu bàyyi loola yi woowa xamoo nu mu toll moo tax nag yàlla kum nam ma jubal nga jub mais yàlla kum nam mu ta jubal doo jub mu ni loolu min alaamati shaqaa'i bokk na ci màndargay texee di wal xidaani ak wa maanaam ak wàccuk suñu borom loolu day wane ni yàlla bàyyi na la <laughs> wa tamsil basirati ak farleeru xol gis nga yàlla mooy li ma la wax sànq di la bu la jéppee du da du tax sa dara dagg loolu moo tax nga gis ku fanaanee julli waxtu du ko raw bàyyi li ko yàlla tere di ci ray boppam di def li ko yàlla digal di ci ray boppam foo ko fekk mi ngi jaamu yàlla génn léegi ci mbedd mi daje koo xamante ni oto bi muy dawal ay million lay jar te moom miy def loolu lépp mënta dawal maanaam yorul yorul moto maanaam moom miy jaamu yàlla moom mi dul def lu xaraam yorul moto nga xool ki nga xam ni métier yëpp njaalo la mooy day jaay boppam am na ci kër gu rafet mi ngi ciy dawal oto yu rafet mi ngi ciy yor xaalisam mi ngi ci nangam mi ngi ci nangam léegi yow boo gàttee xel da nga naan waa mais non lii nu mu demee nii xoolal kii man leer na ma ni li may teet sama digganteeg sama borom moom teetu ko te tey mi ngi nii xoolal lim yor ci wërsëg xoolal lim yor ci alal xoola xoola xoola maanaam yow loolu yaa ngi ko ciy ñee te xamoo ni adduniya sijnul mumin wa jannatul kafir adduna aljana yi la moom àdduna bu dee ab bu dee ab jullit maanaam ci ci safaraam la ne mais bu dee ab yéeféer ci aljanaam la ne adduniya sijnul mu'min waaye wa jannatul kafir su fekkee gëmuloo yàlla su fekkee danga nga weddi sunu boroom adduna moom sa aljana lay doon mën na neex ci yow gis nga lu nit mën a am ci adduna li lay wan ne amul valeur bis bu ruuxam dañee ci yaramam doo gis lu ko ci topp bis boo faatoo xam ni yàllaay buur bis boo faatoo xam ni alal ji amul njariñ bis boo faatoo xam ni kër yi amul njariñ bis boo faatoo xam ni oto yi amul njariñ bis boo faa too xam ni compte banque yi amul njariñ la lay topp sa digganteeg sa borom la lay yóbbu ci biir bàmmeel la ngay yóbbu ci biir bàmmeel sa jëf lay doon du doon leneen waaw kooko wax nag ay détails la koy jàppee ko ku mën a doon ci ëpp ay détails lañ koy jàppee parce que sunu réew ñoo mel noonu ci alal Sénégal ñoo ñoo mel noonu ci am-am maanaam ñoo mel noonu ci alal ba saa yu ñu xëyee moom la ñuy njëkkante moom la ñuy dàq. saa yu ñu xëyee moom la ñuy dàq te yàlla waxoon na yonent salaay sallam ni ko waxal julit yi ni leen gis naa ci ñu bari ci nit ñi seen njëkkanteeg seen kursu yëpp ñu ngi koy def ci alal te alal jooju ñuy njëkkante ak di ko kursu du leen jariñ ndax am na gan guy ñëw di leen seet si ñu di ko tuddee bàmmeel te bu ñëwee fi lañ koy bàyyi te dinañ ma fekk si waaw ah, te dañ cay nekk ba dee jot rek alhaakumu takathuru hatta zurtumul maqaabira kalaa sawfa taalamuuna suma kalaa sawfa taalamuuna ay kalaa law taalamuuna ilma alyaqin la tarahunna aljahim suma la tarahunna ayna alyaqin suma la tusalunna yowma izin an innaim <laughs> dégg suñ borom ak waxinam suma la tusalunna yowma izin an innaim yàlla nee na di ngeen daje ma laaj leen xéewal gi ma leen joxoon anamu fan ngeen ko dépensé waaw summa la tus alun na yow ma idin anin naim yéen ñëpp laay laaj nag ginnaaw yéen looloo nekkoon seen dund yéen ñëpp laay laaj xéewal gi ma leen xéewalee woon fu ngeen ko dépensé maa leen joxoon wërsëg fu ngeen ko dépensé maa leen joxoon doole fu ngeen dépensé seen doole ji maa leen joxoon carton fu ngeen dépensé seen carton gi maa leen joxoon am-am fu ngeen dépensé seen am-am gi maa leen joxoon mën-mën fu ngeen dépensé seen mën-mën gi yooyu yëpp sunu borom dala koy laaj benn par benn lu ci nekk dina la laaj ba ma la ko joxee ci lan nga ko dépensé xataa ba ci carton li yàlla jox góor dana laaj góor carton gi ma ko jox fan la ko dépensé. yooyu yëpp yàlla di la ko laaj point par point virgule par virgule du bàyyi dara dara du échappé sunu borom mais attends waa lii lépp su la ko yàlla laajee ba pare te yow lii moo nekkoon sa dund ci àdduna bu la yàlla càmbaree foo jëm da ngay am problème waaw am problème te yàlla te yàlla du ci bàyyee dara mu rëcc ci bàyyee dara dara mu moo tax mu ni da nga kiy wax baat yooyu day wane ni yàlla génne na ko ci boppam mooy yàlla jéppi na ko yàlla génne na ko ci boppam boo déggee génne ci boppam ak rey ko du ak rey du benn nee naa la sànq yàlla jéppi la taxul nga dee wal xizlaani ak wàccuk yàlla lay wane wa tamsil basirati day wane ni sa xol amul leer ndax nit bu xolam amee leer day borom hamziya nee na xol bu amee ngëm yàlla day xiir ay cër ci ñuy jaamu seen borom. waaw bu ngëm gi nekkee ci xol bi mooy mooy mooy mooy animé cër yi moo leen di sawarloo pour ñu jaamu yàlla bu fekkee xol bi am na ngëm mooy sawarloo cër yi pour ñu topp seen borom waaw moo tax mu ni day wane ni xol bi amul leer loolu moo tax yow jaam bi nga mën a bàyyi sunu borom dëgmal yow jaam bi nga mën a bàyyi nga mën a bàyyi li la yàlla digal di def li la yàlla tere ba pare naan yàlla daal ku mu bëgg a jubal nga jub ku mu jubal doo jub yàlla rek moo fi nekk waaw saa yoo ko defee rek c'est parce que yow sa xol amul leer mu ni nag li nga xamante ni dafa bokk na ci war kooku majeur bokk na ci ko war moom moomu majeur mu ni waye jibu war na alayhi ci kooku ñu togg jëf te mooy ki majeur xifdu lisaani mu wëttandiku làmmiñam min al faxshaa'i wa kalaamil qabiixi yu jara bàyyi xel mooy tëndikul sa làmmiñ minal faxshaa'i ci wax ju bo ju ñaaw wa kalaamil qabiixi ak wax ju bon waaw moytul di wax lu bon moytul di wax lu ñaaw sàmmal sa làmmiñ ba bu ci wax lu bon sàmmal sa làmmiñ ba bu ci wax lu ñaaw mais yor saw làmmiñ boyal ko lu bon lu nit dégg yaa ko wax yor saw làmmiñ boyal ko boo waxee nit ñëpp taf seen gémmiñ nga yaakaar ne ndam la yow daal bala ngaa mën a wax dangay wax wax ji mu ñaaw bu ñu waxee nga naan noo ci digg bi laa koy jaar déedéet waaw moom lañ moom la lañ wax diw dafa ñaaw làmmiñ yow nga def ko ndam waaw topp nit ñi di saaga topp nit ñi di tudd lu ñaaw ci ñoom topp nit ñi di wax lu bon ci ñoom nga yaakaar ne ndam la allahu akbar bisa ngi jot boo xam ni da nga wéet ak sa boroom bis a jot boo xam ni sa digganteeg sa boroom dara du ci dox te bu bis boobaa di nga xam ni yàlla jëf lay fay mais fayul leneen te boo yeggee ci kanamu sunu boroom di nga xam ni sa digganteeg sa boroom amul échappatoire amul fooy jaar pour rëcc parce que fiñ la jaarale ba nga yegg ci yàlla amul fooy jaar pour rëcc amu fa moo tax sa làmmiñ wi mu ni xifdul lisaani na mooy tëndiku sa làmmiñ waaw na nga mooy tëndiku ci lan mu ne ci wax ju bon ak wax ju ñaaw na ci moytandiku sa làmmiñ bul wax nit wax ju ñaaw bul xas gor xoolal tey jii charia daf ko bañ ba indil la ay punition ci ki xas gor ndax bëgg nga rafetal sa làmmiñ ñu ni la boo xasee gor dañ laa war a dóor juróom-ñetti fukki yar lañ la war a àtte ndax xas gi nga xas gor yow nag nga yor làmmiñ wu ñaaw rek ah Sénégal moom balaa kenn bëgg rek daa wax wax bu ñaaw bu dee sa téléphone boo taalee sa live bi loolu nga fay dund moom nga fa nekkee diw xanaa xamuma ba baayam di def nangam ba yaayam nangamee moom bam nangamee li ma ko xamal li ma ko nangamal li ko man li ma ko nangamal wax ju ñaaw ju ne nga wax ko yaa fi nangam wax ju bon ju ne nga wax ko waaye yow xanaa doo sedd ni bis dina ñëw ñu gas am pax ba mu xóot ñu ni la ci menteñ gars yi damaa yaakaar ni dan dul bàyyi xel ni yàlla dañuy yeewaat ci bàmmeel yi fayaat ñu sunu jëfi yi pour lan loolu ngay def pour lan te dara taxul lu dul àddunay kese senegal rek ngay gis euh, euh, kaañ yàqante kaañ yàqante Sénégal rek la am léeg nga dégg la kaañ yàqante <laughs> waa diw man lay yàq aca nañ yàqante mu taal live nga mu pare nga taal live yow it pour lan ñu yàqante raj rajjim yi ci réew mi rambaaj yi ci réew mi kenn ku nekk nag di ca dugg di message xanaa yëgoo li la diw wax xanaa déggoo li la diw wax léeg-léeg ñu capture vidéo envoyé la léeg-léeg ñu transféré la audio léeg-léeg ñu la nangam bi déglu ku baax kii yow lay waxal yow lay gaaruwaale kii sa nangam bi lay wax mais loolu ba kañ te ñun genn wàll gépp nee nañ ay jullit lañu mais loolu amuñu fuñ ko teg yàlla nañ ci yàlla musal bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni li ñu amoon ci waxtu dafa nekk ca cat la ñuy ñaan yàlla mu defal ñu dégg ak topp bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ci rafet ci yàlla la lu ci dëng ci jëmm ji ko doon def la di leen jox dig daje insha allahu taala ci suñu beneen jataay ci al ihsan yàlla nañu yàlla may fekke ak tal bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu